Oh, bul forcer ak soo songale na ko songale na ko daan na fuuf doole. la ilaha illallah. combat baa ngi nii ci digg géew bi nee naa la nag drapeau bi moom mooy drapeau Petroflamme borom station bu mag bi moom nañu duppee li nga xamante ne nii moom mooy grand combat bi dox ci Boylo ak Reenu Guy Reenu Guy bàyyeekoo Géejawaay waa Géejawaay gunge ko sànq maa ngi fi seen liiru jaan di fi seen ñeneen ak ñeneen ci waa Géejawaay gis ngeen làmbaloog noonu si suñuy micro moom it bàyyeekoo Géejawaay kii di nga xamante ne nii moom mooy Boylo moom tamit mu ngi bàyyeekoo Caaroy ñu gis waa Caaroy gunge ko mu ànd ay xale yu sawar ànd ak ay xale yoo xamante ne nii gëm nañ ko fonk nañu bis bi waaye nag ñaari mbër yaa ngi nii di dox di dem di wax ak arbitre arbitre nee na Boy Lo fompal li nga xamante ne nii moom mooy suuf si ne reenu guy nga taxaw nii kon nag mbokk yi noonu la demee arbitre baa ngi nii di leen wax li nga xamante ne nii moom la làmb bëgg moom la làmb bañ ma ne ko Boy ngi nii ndeysaan yor ngemb lu weex li am lu vert ngemb ba rafet lool mu woon ñu ginnaaw reenu guy jàkkaarloog ñun yor ngemb lu xonk li arbitre ne leen buñ fi jekku kenn mu màtt moromam buñ fi jekku kenn mu koloj moromam taxaw leen dóor ci loos amul soufflé moo leen di boole soufflé moo leen di tàqale reenu guy est-ce que dégg nga bul ko dóor foo xamante ne nii lamb da koy tere yow it waxal Boy Lo bul ko dóor foo xamante ne nii làmb da koy taxawal nii reenu guy taxawal nii voilà arbitre bi nee nañ pare nañ mu ngi laaj ay naata pare nañ arbitre bi mu ngi waaj a soufflé arbitre bi mu ngi arbitre bi soufflé na mes amis aujourd'hui c'est dimanche 27 octobre 2024 nous sommes ici à l'arène nationale le grand combat qui se pose entre Boy Lo et Renou Gouye Boy Lo mu ngi bàyyeekoo fi nga xamante ne ni moom mooy Thiaroye Renou Gouye bàyyeekoo fi nga xamante ne ni mu ngi Guédiawaye ñoom ñaar ñëpp dox nañ dem ci li nga xamante ne nii moom mooy si saako yi booy loo jiital pied gauche reenu guy jiital pied gauche ndeysaan làmb ji dina neex lamb ji tey dina yëngu. booy koy nat booy loo koy nat. hop hop hop sama yaram daw na taxawaay bi rafet na. ndeysaan taxawaay bi xeex bi mën naa yàgg makat. mën naa yàgg. xeex bu neex ngi nii. ñaari xeexkat lañ. maa la xoolal tànk yi taxawee la. bakkan kii ku bu jógee rek di nga gis gure bu neex. waaw mais nag mën nañ nit. nga daanu dar sa bopp jug di daw. bilaay dëgg da ngay yaakaar ne lii daanu la. bilaay dëgg la maxi crési ak sa waay woon. moo moo booyloo. mais bi ko booy bi xàccee ku maxi bougé daa xam ne du dem rek mu dàqi koog plaqué. ndeysaan hop hop hop hop te max ko daan ci plaqué. ba mu ko soog a. bu baax na mais ay waay lu ma la waxoon lu ma la waxoon. lu ma la waxoon lu ma la waxoon hop naa la dinañ ci door leen mu génn foo jaar ñu raak waaw booy loomi du ñeexu ñebe du ñeexu ñebe mais bu mu encaissé reenu guy laa ko laa ko fa bëri nekk mais bëggul encaissé xeex kat nag bala ngaa xam ne moo mën a xeex makan muy encaissé waaw ah, kay bàyyi bu dee xeex te du encaissé fekk encaissé wul bul ne xeexkat la. waaw maa la wax loolu. lamba loog am na ñoo xam ne bu ñu encaissé dañuy mel ni gaynde. waaw am na ñoo xam ne bu ñu encaissé dañuy mel ni xar. maa la wax loolu Fallou. waaw waaw. sama waa kër la. sa tool la jógee maa koy formé. ndeysaan waaye léegi mu raw ma. arbitre bi soufflé waat na. arbitre soufflé na. ndeysaan. ay waay Boylo. reenu guy. Boylo tàgg bi rafet na reenu guy tàgg bi rafet na. waaw waaw. Boylo sew na waaye mën naa am doole. maa la wax loolu ndax njool rek doole la. waaw mais moo xool ko sa saako yi rek lay bëree. waaw lii ko lan ah. la wala lan la. parce que góor Gora koy bay kanja jigéen bu méttee nga jéggi. maa la loolu. maa la loolu. de nga dox. loolu saaku yi lan la. saaku fekkiwul kenn. makan yaay dox saaku fekkiwul kenn yaay dox makan wax na loolu booy loo. booy bi daa. booy mën a xeex. non boxeur da koy entraîné. ma la yor bu mamee nga. mais kuy maam a gën a neex a daan. daa xeex. ndax saa xeex si day. booy loo bul jéem a déplacé jël ci feebar jàpp ay makan waxal waay. laay dëgg la moom mooy wax noonu ak makan. maa la wax loolu kii ba léegi rek ñaari xale yaa ngi si digg géew bi di lewetoo. ku ne jiital fausse garde. ren bu ñu sax di na gisoo loo jàpp na génn na rëbb am na. gisoo eh, ñu ngay bëri ci ginnaaw saako ya. waa lii la nii. Ah! wax. si wetu saako boo gisul loo xam naaw naaw jéeg. koy bàyyi loolu la koy doyee bu arbitre souffle waatee fa la jëm mais su ma doon booy bi dama koy kottu latéral na le su insee dañ koy suppa dañ koy avertiser. mais Reenu Guy daa ni moo gën a nekk ci combat bi. Reenu Guy nag day rasu. waaw day ah, Guy jël na benn avertissement. kii daa bëgg jàppante bi. mais kële xeex bëgg. moo tax du ñu ngoo taxaw lu ma la waxoon. ña nga fa jëmaat. ñu koy jëmaat sa wet. booy bi bu amoon xel day taxaw. bàyyi ko ba xam fu mu jëm. waaw ko defee da koy booleeg arbitre bi. loolu nag mbëru professionnel la ko xam. Hmm. waaw boole na ko arbitre bi ndax. wallaay wallaay. demee ba si wetu saako xàcc xàcc songu mel ne ku koy songu bu si suuf mu beese garde bi mu aj ko kor loolu bu ko moom ñaamali bu ko doon bëree day am lu bëri mépp ko si suuf ba mu wàccee garde bi dafa kaw wax kay oh, bàyyi oh, makan foofu la soxla xoolal xoolal booy bi gauche bi la da koy appelé rek waaw lu mu bëgg a def noonu loolu lan la. loolu miin la jàpp na ko door na ko ah oui sama ndey. laa ilaha illallah booy loo daan na reenu guy. Ah! ah ah ah am na lu xew de. ah am na lu xew am na lu xew de. makan am na lu ma gis. waaw noonu la demee noonu la demee mbokk yi noonu la demee ah arbitre la woon arbitre la woon avertissement ah dernier avertissement. ah sort de Berdal. ah kon daanu ko. waaw ah, waaw arbitre la daanu ko. Fallou arbitre kenn du moom Fallou arbitre bi kenn du moom. arbitre waay la drapeau chef de l'État. waaw a baax. arbitre bi mooy karateka. kii tànk yi boo ko laalee dootoo ko defati moom si yoon la koy teg saa mi méttee da koy indiwaat tey abu abu xanaa xamoo bu xale yi di bëre eh. sama yaram day mel ni man maa jàppante ci digg géew bi ndax xale yi dañ may bégal ndax kon boo di waxal da ngaa war a woon a jom ndeysaan abu yow ndaanaan nga kenn du yow parce que tegul tànk yi gis nga ko fi mu bëgg a xeexee baaxul. xoolal xoolal même waxoon même action dama waxoon. daa juyoo coup na ko. hop waxoon loolu. waxoon nga ko maa loolu. waxoon nga ko bilaay wala. maa parce que kee day màmm. xeexam baaxugul. parce que xeex da koy da mais xeex boo xamee booy ñëw da ngay jóg. loolu baaxul si xeex moo tax ma ne la maam kat la saa yu juyoo kuu bi da daan. bi mu ko defee lu mu def am na wala amul waaw lii daal la waxoon comme du neew dama juddul xale mbër ak fas ak jeegayam papay sóora hop hop hop hop hop yow lambalog loolu la lambalog décortiqué woon waaye xoolal ma supporter yi nga xamante ne nii ñoom ñoo ànd ak Boy Lo mbokk yi waxoon naa leen ko sama nijaay nee naa la Boy Lo tey daa ñëw pour mbapat Boy Lo daa ñëw pour lamb xoolal li mu indi ah sama nijaay su ma juumul daan ko ñaari yoon man mii maa ko wax Boy Lo door mu daanu ci ginnaaw saako yi ñu ñëw mu jàpp ko daal di koy daanaat même action waaw waaw xoolal xale ma supporter yi Boy Lo na ko Boylo daa bokk ci la. Boylo mii. waaw day jóge nag côté bi mu nekk. mu ngi waat ci beneen catégorie. xoolal ma xale yi ko gunge. yi dafa bari. waaw waaw a ngi daw. xoolal xale yi nga xamante ne sa bàqu ba. ñoom ñoo ànd ak Boylo kontaan nañ cey lii lii mooy làmb. waaw waaw. il était confiant Boylo. loolu la wone. il était la indi. waaye làmb a ngi guy sa xeex dëgg la waaye Boy Lo daa encaissé. waaw ndax ko jàpp ko daal di koy daan. mu jeex ndax reenu guy. woo na ci xeex. waaw Boy Lo fekk xeex. mu am nam demee ca ginnaaw saako waaw reenu guy ne. su ma ko xeex. mun na maa door ma daanu kon baal ma a bëri. waaw le temps que di ko nax. waaw ci la ko Boy Lo daal di jàpp ànd ak moom lamb ja daal di jeex. dëgg la sëñ kontaan naa ci yow. maa la gën a kontaan naa ci yow Babacar kenn du yow bu fay am dara dama taxaw maa xam ni am ni instant bi yëpp mooma dama waxoon lii yëpp dafa muy dem kon man waruma yaafuus dama dama dama ji bu pare mag ba ma mag mu dem bàyyi ba man waruma ñàkk jom Tigo maa ngi koy seetlu ma fayam Tigo mii sama kale di di ba léegi mu ngi sonn dégg lu ne nag dafa gars yi wax Tigo sama du dara day muñ lam nag moo demee nii nga neex sa su ma da nekk man maa ngi sant yàlla gaa gën a daanoo guma maa ngi sant nag du sama jàmbaar nag Jackson dañoo nu bëre. waaw waaw. barke alxuraan barke Seydou. mooy biri mooy biri ma may biri biri doo ma coow.